سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن سيد شيوخنا تاج العارفين ممد كل أولياء الرحمن أبي العباس أحمد بن محمد بن سالم التجاني mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii suñu télé bu bees bi fa tabarakallahu muy Étoile TV ñi wax leen di présenté suñu émission yi nga xamante ni moom lañ leen jàlleen ci annonce bi fa tabarakallahu tey nag ñu dikk génn tabarakallahu ci koor waaye ci cosaanu koor fa tabarakallahu wax leen ni émission bi mooy jataayu xam-xam émission bi nag yéen la ak ñun fa tabarakallahu ñu war a jàkkaarlu yéen ci koor mooy lan ak naka dañu war a wooree bu ngeen ñu déglu tut incha allah dinañu ko faram-fàcce ba mu leer ndax ku ci nek rek so ci joge nga mën xam nak nga wara a ak wor baatu wor mom moy lan tabarakallah nu ko waa loxo firee ak nu ko allah di ngeen ñu deglu ñi wax leen bu baaxa baax fa tabarakallah ñu gën gëstu ci ay hadis wala ci ay téré tabarakallah fuqra'awi ni ñi siyam al aslu fi luqatal moy ko ci luqa ne moy al imsak imsak nak buñu ko waxe bat la bo xamanteni bat wainak bu gatt waye nak di bat bu tabaarakallaahu jarakam di bat bo xam ni dañ ko wara baye xel fa tabaarakallaahu al imsaaku nak moy nga japp japp ci lan japp ci lek baña lek japp ci baña nan. fa tabaarakallaahu yooyu mo imsaaku waye nak japp it amna ci lu ñuy jàpp mooy sa cër fa tabaarakallaahu say nopp fa say beut ak say bakkan tabaarakallaahu yep wara am ci koor waye nak maaniya kañ lay koor di am mooy yéene kon nga yëg ne soo yéenewul sa koor du baax yéene fan la ñuy yéenee bi mu la wóoree ne am nga information bu wóor ci weer wi li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne suumu na ngeen woor ñu ne ko rasulillahi bu ñu woor lan la ñu woor mu ni nag li ru'yatil adlayn ci gisub ñaar ñu maam wala jamoo mustafi jamoo mustafi rek ñaar ñu màndu mooy la ñu nekk fii ci Sénégal maanaam fi ñu ne ci Tiwaawan tabaarakallaahu gis nañu kenn koo xamante ni wóolu nañ ko waxam dëggu na waxam leer na saa yu demee jàpp fekk ko fa waaye xam nañ ko ci bañ a def ay caaxaan kooku bu gisee dañoo war a woor ngir moom ku màndu la jaama mustaqil nag bu ñu ko wax bu matee juróomi nit wala ku gën a kawe seeratuñ seen màndu li ñuy woor dañuy woor rek ñoom ginnaaw nag bu ñu ko waxee mooy nga yéene bi ngay naafila ne yéene naa fas yéene naa woor weeru koor woor gi ngay woor weeru koor nag benn yéene boobu ëmb na koor bi waaye boo amee ngànt ci diggante bi danga nga yéenewaat al imsaaku nag ci saraxin mooy nga bañ a dog ginnaaw bi fajar xare bi nga xëddee bañ fajar xar nga jàpp woor bañ a lekk bañ a loolu mooy imsaak waaye nag kañ lay am maa an yee kon koor nga yëg ne boo amul yéene sa koor baaxul ndax innama amwaal binniyaat mbir yëpp mu ngi amee ci yéene kañ la yéene di am mu ne minal tuluul fajr yéene mi ngi am ba jant bi feeñee wala ginnaaw bi nga gisee weer waaye nag ba xar fajar gi nga yéene ilal xuroo bi jëm ba ci sow jant bi yonent yàlla Muhammad daan waxoon ne dee leen xëdd yéexee leen waaye teel a dog teel nag bu ñu ko mooy bu jant bi soowee ba xonk-xonk jant bi dem kooku mën nañoo dog wa siyaamu saxari saxu ramadaan yooyu woor weer koor nag ponk la ci ñeenteelu ponk lislaam kon balaa ngaa wóor war ngaa seede ashadu an laa ilaha illa balaa ngaa wóor war ngaa taxawal julli balaa ngaa wóor natt asaka soo ko amee waaye nag fa tabaarakallaahu koor dogo ñëw muy farata boo xam ne nii yàlla moo ko dogal ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala allazina min qablikum laalakum tattaquun kon nga man ci déggee ne koor jiitu woon na lu dikk lu njëkk suñu ñëw waaye jiitu woon lu njëkk ñëw rasulillah waaye bi yàlla ñëwee bi mu ñëwee yàlla da ko farataal ci moom moom sayyidina muhammad mi nga xamante ni mooy xayru xalqallah mooy asrafal xalqi sayyidil mursalina yonent yàlla muhammad bàyyi fatima roxoy kooku mooy rasulillahi moo tax ñu am weer wi moo tax ñu am ngëneel gi kon ginnaaw bi nga seede baati seede yi muy asadu an laa ilaha illallah nga taxawal julli kon boo seedewul taxawal julli mënoo woo nga natt asaka soo ko amee boo nattul asaka boo ko amee da nga war a natt doog ñëw kon nga xam ne wóor mooy ñeenteelu ponk lislaam wóor nag dafa bokk ci yi gën a màgg ci jaamu yàlla yi waaye woo am na ñetti part yoo xam ne mooy dajee ci koor fi anwaa'i sabr salaasa as-sabru ala taat koor gi da ngay muñ ci topp yàlla muñ ci topp yàlla doo ci yem waaye nag wa sabru ala al nga muñ ci mooy yàlla waaye doo ci yem wa sabru ala al laa nga muñ ci dogalu yàlla yi lépp lu la yàlla teg Eh, mu métti nga nang ko ndax bul fàtt waratini bi qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu yallaahu ni ko Seex Seydi Aji Maalik waxe woon fa tabarakallahu koor mooy yi mooy nga muñ ci topp yàlla muñ ci mooy yàlla muñ dogalu yàlla yi fa tabarakallahu yii mooy ñett yoo xam ne ci biir koor la nekk waaye nag waxuñ koor di lido lido dafa xaraam suñu mbokk yi lido dafa xaraam koor yi fi caaxaan dafa araam ñu bàyyi ko xel fa tabaarakallaahu waaw du te yem war ngaa ñoŋal sa làmmañ ci koor bañ a wax wax ju ñaaw di wax wax ju rafet waaye nag wax ju ñaaw ak wax ju bon mooy kësib ak wax lu sa nekku ak wa surri ak wax waxu caaxaan kon ñun yàlla Muhammad nee na koor boo ko defee war ngaa ñoŋal sa làmmañ ci wax wax ju bon wax ju ñaaw di pen ak waxu caaxaan jo xamni ni am bopp amul liñ ci bëgg moy ngay nafila di jang alquran di tuddu sa borom tabarakallah di julli ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam di jang alquran bu baax baax tabarakallah qawlu taala fa najalu llahu lil kaasibin yalla mo wax ci hadis ci euh, alquran ci ali imran neena na fem kat kon rawati rawatina fen ñi bañu ko ci koor fa tabarakallah yi lañ leen andiloon muy seen émission tabarakallah bu ci sunu darsu koor fa tabaarakallaahu muy yiñ leen wax koor azan sa làmmañ war nga koo tëj sa gémmañ ba doo wax lu bon lu yiw rek wax ba doo saaga lu yiw rek ngay wax ba doo fen lu yiw rek ngay wax ba doo wax waxu caaxaan lu yiw rek ngay wax waaye nag war ngaa xool sa bët yi lu baax rek nga ci war a xool sa nopp yi lu baax rek nga ci war a dégg sa lu baax rek la war a dem sa loxo yi lu baax la war dem seen mbokk sen xarit oustaz Alioune Seck ngeen ci àndaloon in uridu ila al islam mastata'tum wa ma tawfiqa illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh